bi ko yàlla bindee muy leer te booba yàlla bindagul dara te am na ñu njàng njàng mu bees ñoo xam ni gëm nañu ni yonent bi salaa salaam benn guide spirituel rek boo xam ni dañ ko war a topp ci li mu wax jeex na amul benn daraja amul benn pouvoir am na ñoo xam ni seen gis-gis foofu la toll waaye boo demee ci abwaabul faraj dafa indi benn xadis boo xam ni albayhaqi moo ko solo yonent yàlla aadam bi mu tooñee yàlla ba yàlla génn ko àddina aljana yóbbu ko àddina muy dëkke jéggulu subaak ngoon guddeeg bëccëg loola tax benn bés mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ñag ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ne ko foo xamee kooku mu ne ko gis naa démb ba nga ma bindee dugal ma aljanna ma gis nga bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma xam ni yow yàlla ni nga bañee bokkaale ak ni nga bañee ku luy tudd di tudd leneen kon képp koo teg ci sa tur rek fonk nga ko suñ borom ne ko kooku moo tax ma bind la kooku moo tax lépp lu am ci darajaam laa ko amale waaw ndax bu aadama amul woon mbindeef fi daa ñu am alxuraan lu mu wax ittaqullaha allazi tasa yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waahid xam nañu foofu ñun ñëpp ci benn bakkan lañu suñu borom subhaanahu wa taala bind loolu yonent yàlla aadama wax moom la sëriñ bi ne arash wala aljana boo fa demee foo sànni sa bët yàlla muhammad la fay bind kaas ya ñuy naane ca kawsara muhammad la ci bind tapis rouge muhammad la ci bind plafond yi muhammad la ci bind foo sànni sa bët yàlla mu ngi ci bind muhammad alayhi salaatu kon mel na ni lépp lu am rek yàlla mu ko amalee ci dara jàmm moo tax kon leer googu ba ko yàlla bindee muy leer leeru kese yàlla digal ko aj ko ci kaw genn garab goo xam ni am na ñeenti banqaas suñ borom di ko xool ba mu yàgg mu jox ko seetu ne ko xoolal sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci leer googu mu xool seetu bi ak kersa gu bari daal di sëgg màggal suñu borom daal di ñàq nee na ñeenti banqaas yooyu mooy sababu ñeenti saxaaba yi ko topp kon ñooñu fañ ko toppee sori da moo tax Cheikhul Khadim di wax ni képp kuy tagg yonent bi sallallahu alayhi te boole woo ci ñeent yooyu sa tagg dootul am solo mu njëkkee ci Abu Bakrin Siddiq zu sidq wal wafa rafiqu nabil Mustafa xaar an boobu ba ñu jeex foofu mu jaar nag di ay leer nga xam ni wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xijaab bi ko yàlla njëkk dugal mu di fa sàbbaal suñu borom subhaanahu sax na fa fukki junni at ak ñaar di sabal tur suñu borom subhaanahu wa taala keroog ma ngi sabbal subhaana rabbiyal ali sha'ni dëkkee na ko fukki junni at ak ñaar yàlla jële ci leer googu tuxal ko indi ko ci xijaabu azamati mu sax foofu di fa sabbal subhaana aalimil sirri kulli def na ko fukki junni at ak benn suñu borom jëlaat leer googu indiwaat ko ci beneen xijaab bu ñuy wax xijaabu mannatihi mu sax fa sabbal turu suñu borom subhaana rafiuna yàlla déplacé leer ga indiwaat ko ci beneen xijaab bu ñuy wax xijaabu rahmatihi nee na mu ngi fay sabbal suñu borom subhaana rabbin raf ruufun rahim def na ko juróom-ñeenti junni at bi mu ñëwee nag ci kiiraay lu mujj suñ borom jël leer gi toxal ko def ko ci yonent yàlla aadam léegi war naa judd nekk nit amee bopp ak tànk ñu di ko gis muy wax ñuy dégg waaye mu uteeg nit ñi lépp ndax alxuraan moo ko waxoon qul innama ana basuru mislukum waaye nag yuha ilayya kon loolu moo ko utile ak nit ñi leer gi bi ko yàlla fee ci aadama te aadam bu daan jur ay doom ay seex lay am góor ak jigéen ñaar ñooñu dañuy juwaatle seeni seex kii sëy ak kële kële sëy ak kii yàlla jël laar gi indi ko ci yonent yàlla si sa mu jóge ci si sa histoire bu gudd ñëw ba ci abdul mutalib ñëw ba ci abdallah yàlla war ko préparer nag utal ko ndey ju ñu xam ak baay bu ñu xam yonent bi salaay salaam Suhaylu dafa wax ni keroog ba abdallah demee yasriba muy madinatul munawara ngir takk ci soxna suñu amina romb na jigéen yu bari ñu koy proposé pour mu takk leen parce que leer gi ci moom jigéen du ko gis xàmmeem ko leer gi ci moom ku ko gis jox ko cër te loolu mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu gàntal leen keroog ba mu jëlee Amina ci weeru rajab la ñu wax ni ci la waajuram ëmb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biiram ci weeru rajab loolu la Suhayl ibnu Abdullah wax keroog ba mu ko ëmbee rek su bés boobu lañu dégg baat buy wax jëm kaw ci asamaan naan tanabbahu anna nuura xat mi xat xalat fi haasi laylakumu yeewu leen jóg te xam ni ci gën ci mbooleem nit ñi ëmb nañu ko ci guddi tey ba baa buxiru xayral buxuur jóg te cuuraay bu waay am na ko taal parfum bu waay am na ko génne ndax guddik tey ëmb nañu ki ci mbindéef yi te mooy sallallahu alayhi wa sallam booba mu ngi ci biir yaayam ci weeru rajab bat bu continuer di wax ca kaw nan wa absiru sijadaati takriman ala seydil umam jóg ngeen lal tapis rouge yi ngir terale ko sang bi nga xam ni moo gën ci lu yàlla bind te nga xam ni ëmb ko guddik tey moom la wax ni teraanga ji yàlla terale yonent bi sallallahu alayhi wa keroog bi ko yaayam ëmbee mu nekk ci biiram jàmm dafa tasaaroo ci àddina bi jàmm siiw nga xam ni bukki daje na kéwél ci àll bi okolaat ko jàmm rek moo xew benn rab faddul benn rab ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rab bu taseeg sa moroom danga ko naan ah yëg nga li xew ki gën ci mbindéef kat guddik tey ëmb nañu ko yàlla tasaare jàmm ci àddina bi ba benn rab fàddul wenn rab nee na nga dem ci biir géej gi benn jën lekkul benn jën géej gi jàmm siiw fa jën wu daseeg sa morom okkalaat ko traan ko ndax yëg nga li xaw ki gën ci mbindeef yi kat ëmb nañu ko ci guddik tey noonu lañu dëkkee ba ñaareelu weeram yonent yàlla aadam ñëw ziyaar si soxna Amina ne ko ma yëgal la ni dama ñëw ngir ndokkeel la ziyaar si la xamal la ni yaa ëmb ki gën ci nit ñi nee na ñetteelu weeram yonent yàlla Ibrahima ñëw ndokkeel ko ne ko yaa ëmb ki gën ci mbindeef yi ba mu àgg ci juróom-ñeenteelu weeram am na ñu ne yonent bi salaa salaam soxna Amina mi ngi ko ëmb fukki weer am na histoire yu wax loolu am na sax histoire yu saxal ni ëmb ba matul juróom-ñeenti weer waaye bu ñu delloo ci barzan boobu moom limu mu mooy yaayam ëmb na ko juróom-ñeenti weer jëm fukki weer keroog ba mu tollee fi jigéen war a toll muy war a wusin suñ boroom yebal Sayyidatina Maryam ak Asiya ak jigéen ñu baax ñu njëkk dañu xamoon ci histoire lislaam ñi leen dem leen ngoon ndokkeeli amina ndax jigéen ñi ku ci sa moroom am doom boo koy seeti da yóbbu saabu yóbbu kotal yóbbu omo yóbbu lu xale di aajowoo ñii la yàlla délégué muy jigéen ñu sell ñooñu ne leen dem leen ngeen ndokkeel ko ngeen jox ko ak ceetam jigéen ñooñu def délégation ñëw ni ko yaa ëmb ci yàlla gënal ci nit ñi mu toll nag ci war a wusin comme ni ñu ko xamee jigéen ji toll ci mat war a dem maternité léegi sax dégg naa jigéen ñi booy dem dañ naan la waxal yàlla tiif waxal yàlla tiif dee koy wax sage-femme bi sax mokkal nañu ko ah kay dëgg la parce que yàlla foofu latif rek la fay tudd tur latif rek la fay utilise ndax bi muy détaillé fi mu jaar ak nit wala xadd xalaq naa linsaana min sulaatin min tiin ba aaya ba jeex bi mu nee maa bind nit ci toq ndox di ko topp ba mu yàgg ma def ko muy lumbu deret ba mu yàgg ma def ko muy suuxu ndawal ba mu yàgg ma xotti bët yi ba mu yàgg ma bënn bakkan yi ba mu yàgg ma indi bak ma indi nopp ba mu yàgg ma bind ko bind bu mat ba mu yàgg mu ne suma ansa naaw xalqan axar ba mu yàgg ma bind ko beneen bind mooy ma def ko muy góor wala muy jigéen nu mu ma soobee mu war a génn nag ci jaaruwaay bu xat boo xam ne kenn du ko fu mën a delloo yàlla nee na jigéen ji imbi doomam wusin ko jël weenam jox ko ween woo xam ne soo ko daggoon tey deret muy génn yàlla ni diggante deret bi ak deret bi ma jàll ci meew mu sell xale bi di ko nàmp ba xëy mën a yor dogu mburu moo tax foofu yàlla latif rek la fu tudd waaye loolu di dal jigéen ñi nga xam ni xam nañu ko ñu baal ñu jigéen bu tolloo rek ci weer wu njëkk tolloo ci weer wu njëkk xel mu teey da koy dikkal muy jafte dana macc daxaar ak limo ak lu ne dana ko lekk ngir xel may teey loolu ñuy wax jafte soxna Amina loolu gaaru ko

am njàng bi mënut a ànd ak waxtaan te sëriñ bi sax tere woon na ko. keroog ba muy wusi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toll ci war ko indi jamono moom soxna Amina moo nekkee wax nit bu ma tolloo ci mat yëguma benn mettit damaa jékki-jékki rek gis jëmm ju ma dikkal yor lu mel ni ñaari laaf riisu ko sama mbagg yi ci saase ma wusin wusin bu sedd gone ji ma ëmboon bi ma koy indi indi mu benn coono sage-femme bi ko doon réewle muy ummu Abdourahman ibnu Awf sage-femme boobu moo réewle soxna Amina daf ko réewle ba ba pare génn di wax ca kaw ma ngay xàqataay kanam nga di bind mu ne tey réewle naa lii boo xam ni kenn duñu ko réewale te kenn mës a réewale liir bu mel noonu bu ñu ko laajoon nag mu ne liir bu juddu loxo yeneen téye dafa raxasu waaye liir bi ma réewale tey dafa juddu set wicc dafa juddu ak ñaari bu ñu ca kaw du xool ca kaw tàllal baaraamu sànnikaay ba naan subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar yonent bi salaa salaam bi mu juddoo doon leer ndaxam ku am doom ca maternité la ñuy njëkk a laaj mooy mbaa jooy na xale bi su jooyee indaal na bakkan su jooyul amuñ ci yaakaar salaa ba mu juddoo rek loolu la wax daa tey teg jalaala rabbi rafia tudd naag màggu suñu borom mi nga xam ni moo gën a kawe lépp nee mu juddu malaayka yi ni ko cas ca yaayam ci saasi lu matul kafa xib ni jël ko daw moom wër juróom-ñetti bunt àjjana yëpp fu ñu fëgg ñu ubbi leen li ñuy wax xale bu ñu dugal néegu góor ak war a dagg jumba xam ak war ko defal yi na santaane yooyu yëpp yàlla moo ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dugal néegu góor ci aljanna ba muy juddu fekk na yàlla tus bëgg yi mu war a tus jekk lool malaaka yi ku fab jox sa moroom jigéen ñi urul ay nii ku fab jox sa moroom kontaan lool ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni keroog li iblis xaaj yuuxu ca kaw mboolem njabootam ñu wër ko ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi lan moo la dal wa maa sababu rajidika sa lox jii ngay lox lu ko waral mu ne leen yàlla ngeen toskare xanaa yóbbu lii nii juddu na tey te kooku moo nar a yàq sama programme te programme Iblis Sëñ Tuubaa nee na mooy fexe ba ñëpp di am sawar programme Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Tuubaa nee na mooy fexe ba ñëpp dem aljanna mu juddu ci melokaan woowu juddu wiin wu yéeme lool jaaxal mbooleem ñuy jamonoom yaayam boo ko nampal waaye arab yi amoon nañu aada ku am sa doom danga koy joxe ñu nàmpalal la ko yonent bi salaay salaam dañ ko jox ku ñu wax Suwayba jaamu bàyyam loon moo ko njëkk a nàmpal ci weenam ñu jël ko ci moom jox ko ga ngir mu nàmpal ko benn dana na nàmpal beneen boole bu dul yonent bi ci ñoom nàmpal Ousmane ibnu Mal'un waaye li mu seetlu moom xalima nee bi ma joxee yonent bi salaa ma di ko nàmpal ci saa si sama kër d'accord ba fa nekkoon dafa dàqu kër gi commencé naat jur gi ma yoroon dawul am soow mu commencé am soow waaye yonent bi salaa salaam naa ne ku gore la liir yi ma yor di leen nàmpal moom su ma ko nàmpalee salaa salaam day nàmp tuuti bàyyi ngir bàyyi yeneen liir yi war a nàmp xalima bu saadiya def benn témoignage bu am solo daal ni dama dem ba mu yàgg rek ma seetlu ni gone ji ma nàmpal su ñaqee ndekete ñaq wi day xeeñ xeetu parfum boo xam ni kenn mës a gis ci àddina xet bu mel noonu mu ñaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu def remarque boobu mu jël ñaq yi di ko dékk ci bool mujj di ko di ran këram léeg-léeg bu sallallahu alayhi wasallam mu jaay ñaq yi bu demee ba mu yàgg gisatu ci moom ñaq am ku ñëw ci moom ne ko xalima jaay ma parfum amutuma ñaq sallallahu ma jëli beneen parfum jaay leen ko waaye su ma leen ko joxee dañ naa ma déedéet bi mu ñu jaayoon démb laa bëgg te ba mu leen jaayoon démb ndekete moo ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yor ko ba mu am ñaari weer ñaari at ak ñaari weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ànd ak xale yi di foofu ci ginnaaw dëkk ba te xam nga ni màgg gu gaaw la ko yàlla defal mu génnee di foofu ànd ak xale yi di sàmm gàtt yi ñu jekki-jekki gis ñaari jëmm yu sol yëre yu weex wàcc ci digg xar yi xale yi daw taxaw fële ñu ñëw lew sallallahu alayhi wasallam ndànk daal di koy jël ba sori tëral ko xar dënn bi xale yi di xool image boobu ba mu yàgg rek ñu daw ci Halimatu Saadiya ne ko zaaka aqil Qurayshi qad axazahu rajulaani lahuma siyaabun bi fa arjaahu wa saxaabatna ne ko suñu mbokku Quraysh moomu kat am na ñaari waay yu sol yëre yu weex jàpp nañu ko tëral nañu ko ña ngay xar dënn ba xalima ne na loolu tiitloo ko ma daw man ak sama borom kër di xoolu salaa salaam bi ñu ñëwee ñu ko fekk mu toog sëgg xalima ne ma laaj ko lu xew waxul sama jëkkër laaj ko lu xew waxul ba mu yàgg rek mu ne man daal am na ñaari waay yu ñëw tëral nañu ma xocc nañu sama dënn ama lu ci jëlee dem nañu xaw ma lu mu doon xalima xool borom këram daal ni gone gii buñ ko dellawul ci ay waajuram yi koy dikkal xamuñu lu mu doon te ragal naa ni seytaane yi am wàllu ci moom xalimatu saade jàpp ca loxoom yóbbu ca amina màkke ne ko téel sa doom nàmpal naa la ba mu fer amina ne ko lu tax nga dellu siku te yow da ngaa xëroon ci moom lool bëgg ko fam ko mu ne ko daal nàmpale naa la sa doom téyel mu ne ko kaay wax la ndax da nga ragal ci moom seytaane xalimatu saade ne ko waaw ndax moom am na yu koy dikkal yoo xam ne xaw ma lu mu doon amina ne ko déedéet ci seytaane du ko mën a ndax bi ko ëmbee am ne ma isa wadaatihi sammihi muhammad saa yoo muccee na nga ko tuddee muhammad te na ko nëbbu nee na bi ma ko ëmbee ba am ñetti weer bu ma solo ba war a génn aajo wootul may seetu sama xoolee sama biir gis sama bopp sama yaram dafa leer nañ nee na bi ma ko ëmbee ba am juróomi weer gis naa leer bu bàyyi koo sama biir di leer ba ci taaxu Saam ya ak Busra ya di leeral addina bi ne ko nag seytaane du mën ci moom dara xalima ne ko jërëjëf jëlal sa doom ma dellu waaye ibnu ishaqa nee na li tax xalimatu saadiya delloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci way mooy labbe yi dañoo jàngoon ci tawraat ak injil meloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam melo yooyu nag bi ñu gisee xale loola ñu jàngoon ci seen téere ñu gis ko sallallahu ñu ne haza nabiyu haza zaman nguur si mooy yonent mu jug ndax jàngoon nañ ci injiil na muy mel ci xar kanam na muy mel ci doxiin te gis nañ ni fu mu dem am na niir bu ko topp di ko niiral jàngoon nañ ci injiil secret bi yàlla def ci nit mu jub yamono yonent muy xaatimu nubuwwa di nekk ci ginnaawam loolu tax ñu di ko xool balaa bi ñëw ci xalimatu saabiya ne ko duñu bëgg gone gi nga jox ñu ko ñu yóbbu ko suñu réew war ko suñu buur ndax xam nañ ni lu mag yàgg-yàgg mbir mu mag dana feeñ ci gone yi kooku nee na loolu moo tax alimatu sahabiya yóbbu ko melo yooyu moom la Cheikhul Khadim détaillé ni ku dul Muhammadu rasulullah amuloo melo yooyu nee na xat kaana za tawassuti ne salaa salaam bind bi ko yàlla bind dafa digg dóomu fi xaddi jaani sutati yàlla tën ko ci forme bu rafet walam yakun bil mufrati yàlla bind ko mu ëpp lool waaye bind ko itam mu sew lool walam yakun bi adami nee na mooy booy xool yonent bi salaa sallam yaramam xonqul lool weexul lool soo ko doon misaal da nga naan dafa bronzé loolu tubaab yi wax bronzé nga xam ne léeg-léeg sax daf leen jaral ñu dem ci tefes gi tëdd naaj bi di leen lakk ngir ñu bronzé nee na koy xool daa mel ni yaramam noonu la xaw a mel walam yakun mutahama Cheikhul Khadim nee na yonent bi salaa sallam amul woon yaram ba mu ëpp walam yakun mukalsama nee na amul woon ay lex ba fa ëpp ban man sama min muntamili aadami nee na képp kuy askanoo ci doomu aadama yonent bi salaa sallam moo la gën a taaru moo la dàq kaana yatulu kulla man maa maa saawu fi kulli zaman képp ku ànd ak moom di dox loo njool njool boo ànd ak moo lay sut te salaa bind bi ko yàlla bind njoolul gàttul waaye yàlla defal na ko teraanga ju toll ni loo njool njool mu sut la wa kaana waasitaatan nee na dënd bu yaatu la amee yadhaku bi tabassumi nee na suy muuñ suy ree ree du am kaddu waaye day muuñ daa mel ni suñu maam Cheikh yaa ngi may soññ dama la waxoon ni xam naa sax ñi ma waxtaanee du sama nature ñi ma profité waxtaan yi parce que minute yi ma xaw a tënkal dama amul yéene rek détaillé lu man ñeenti wax mbaa lu ko ëpp waaye si am na jot ñu ngi fi am na ci wàll te jàngkat yi ñu ngi fi ki ñuy waxtaanee mooy. sangu àddina ak alaaxira gént la gu amul tefes te yaakaar naa ni lu ma wax rek dëgg lay doon ndax dañ koy teg mooy borom guddi gi yàlla taas ci barkeem te it Sidi Hadj Malick dafa waxoon ni bëgg ak sopp bu ànd la topp du am njëriñ loolu sax arab yi daan nañu ko moo tax Cheikhul Khadim ku mu raw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la rawee bind yi muy bind jëmale ko ci moom laka lisaani ma al janaani wala udaani kaso alaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikhul Khadim nee yaa moom sama xol yaa moom sama làmmiñ tàggantewu ma waayantewu ma ni ko arab nit ki daan defe dégg naa ci réew mii ci télévision ak rajo yi nit àttan taxaw lii sama maam li mu wax ci yonent bi kenn waxu ko da koy wax réew réew mel ni Sénégal te Cheikhul Khadim nekk fi Youssouf Ismaïl si Ablaye Diop xam nga nit bind na téere yu bari ci siraatu ala nabi daan ko liggéey lu daan gis yonent bi nu mu ko neexee ci sababu liggéey siraatu ala nabi dafa am bés salaa salaam ko mu ne ko waaw yonent bi ndax li muy julli ci yow am na benn jaam bu julli lu toll noonu cela seetlu ko boo demee ci réew nit ñu ñuul ñi Sénégal am na fa jaam boo xam ni la muy julli ci man asakaam julliwoo ko ci man ana baxaani moomu def na yitte jógee li ma ngir ñëw Touba gis Cheikhul Khadim waaye Mali la yem kon wane ni cofeel bi nekk ci Cheikhul Khadim jëm ci Yonent bi sallallahu alayhi wax na ni place bi Anas nekkoon di ko liggéeyal Anas nga xam ne liggéey na leen di sallallahu alayhi wasallam fukki at Cheikhul Khadim su ma nekkoon ci place boobu ci zahir sallallahu alayhi wasallam bu génnee di dox su yëkkatee tànkam sama lex lay lal mu jóg ci jàll bu yëkkatee beneen ma lal sama lex mu jóge ci jàll xanaa loolu ma def ay mën a yem kon sëñ Cheikh jërëjëf yoon ya bu ci benn trente mille moom nuyoo rek mooy xaj